discours de Moustapha Guirassi. On aurait aimé même l'avoir ici à Noumélan, mais certainement il nous fera l'honneur le privilège de, venir. Parce que voilà koo xam ni moom euh, bi ñu ko xamee ba tey ci ci dal lañ ko xam ak ci ci boobu. et puis nga gis ñu mel ni Cheikh Bamba Dièye je rappelle que quand même euh, Bamba Dièye dafa yeewoon bokk buntu assemblée nationale mais image yi dafa doon défilé. c'était symbolique pour moom parce que le message qu'il voulait transmettre mooy en tant que député dañ ko xañ liberté pour mu pour mu jouer ko donc c'est des images symboliques qui sont revenues mais tey bi ñu ko xamee ba tey c'est des discours responsables mais xam nga discours responsabilité boobu li mu li mu war mooy personne n'a intérêt à ce que dëkk bi taal personne n'a intérêt à brûler ce pays personne n'a intérêt réew mi mel nii mais ki nga xam moom moo jiitu nekk garant de jàmm jooju ñu am jàmm jooju du ñu nawee mooy le président de la république d'abord donc je crois que c' est une invite quand même à plus de hauteur parce que am na fooy toll c' est pas signe de faiblesse mais de sagesse yaa ngi doon cité Abdoulaye Wade 23 euh, juin Abdoulaye Wade ticket présidentiel reculer na cédé na rocci na projet de loi te terewul il avait donné la permission ñi ànd ak moom ñi àndul ak moom kaay leen ngeen manifester et pour avoir une démocratie il faut avoir des démocrates et gis nga preuve de sagesse boobu ak aussi euh, nit am na fooy toll da ngay déglu Ablaye Wade am na fu mu toll dellu na ginnaaw bu forcé woon tey amaana leneen la la mënoon indi loolu wala la mënoon jur donc je crois que jot na ñu mu am un peu plus de hauteur et de grandeur gis nga mbir mi dafay mel ni élastique boo ko xëccee ba mu teg soo ko bàyyiwul bu yàggee mu dagg te mbir mi dafa mel ni bala teg boo ko dóoree violence boobu muy am dafay delluwaat si sa kaw xam nga tey ci régime boo gis di nga am ay vantagère di nga am ay faucon di am ñu lay xamb mais tey am na fooy toll baax na nga jëlaat recul pour inter prêter décoder message bi nga xamante ni moom nga gis parce que ñun ñëpp jàpp nañ ni euh, man tey gis naa ay ndaw yoo xamante ni da ngay dajeek ñoom ñu dem ci boutique bi borom Auchan waroon na woote. dafa wax lu am am solo. Hmm. de faiblesse. mais, mais de sagesse mais de hauteur mais xam nga tey non non man waxuma ko de euh, kii moo ko wax en fait Déthié Fall moo ko wax ci interview bu mu doon def. Hmm. Euh, dam ko reprendre rek que en fait il faut parfois nga am. parfois hauteur. xam ni comme ni ko Abdoulaye Wade defee ba mu déggee que ni ministre am yi seen vie ñi ngi nekkoon en ñi ngi wax waxu kër Farba Senghor ak yeneen kër yi ñu doon waaj a taal mu reculer mais aussi dafa amoon ko si jàppale ñu ko ci poussé. ku mel ni Doudou waat ku ay c'est-à-dire il faut à un moment donné nga am ay kilifa yoo xamante ne dañuy nangu exercer seen pouvoir mais boo amee ñoo xamante ne saa boo waxee ñuy lemmi lemmi naan monsieur seen président waaw xam nga nit koy da koy da xam nga dañu def keroog grande guerre. Mm-hmm. wax médiation ma ne la. waa ji de gaynde gu tëx la parce que loo mës a faw mu dakk bu la kilifa ñaanee taxul nga bàyyi parce que am na nooy nooy nooy nooy nooy ñëgee am na nooy toppee benn xeex bi nga dem ba yow doo si gañe xam nga boo dégloo discours Sonko man am na ñaari moo yu ma jàpp ay lexique daam ci baa mais day ah sama professeur bi dafa am fu mu wax même si je vais perdre des plumes moom moom aussi il sera perdant ça veut dans cette situation tout le monde est perdant beneen bi il lui dit soo ma bëggee liquider politiquement tu vas devoir te salir les mains quest que ça signifie parce que tey da ngay toog médias yi nekk bitim réew lan lañ lay wax suite à l'arrestation d'un opposant il y a eu des manifestations tey ban image la ñu joxe on est en de ternir l'image du Sénégal on est en train de ternir cette démocratie tant chantée temps vouée et aujourd'hui le président Macky Sall il n'a pas droit à la régression démocratique il n'a pas droit à restreindre les libertés vous savez madame c'est c'est très simple gis nga la goutte de trop mm-hmm. bu ci egg gis nga muus nag boo ko toppee wut sayat mu koy muñ mu koy muñ bu demee ba amatul benn issue si sa kaw lay ñëw et puis quand le, quand le ministre parle de, de de de terrorisme ils n'ont pas compris par contre c'est l'État qui a terrorisé les populations c'est l'État qui passe tout son temps addu kalpeñu raket nañ autoroute à péage bi bu ñu jaaree dañuy fay on va prendre des investissements ndaw ñi liggéeyuñu xëyuñu l'affaire n'est plus devenue un problème politico-juridique elle est devenue benn problème social soo comprendre mbir nag da nga koy diagnostiquer nga saytu ko nga xool mbir mi lan la la mën a jural ëllëg gis nga quand tu de l'étincelle nga di ko fowe sur une alors que dëkk bi dañu toog ci ci ci jafe-jafe yu métti daam man sama papa jàngalekat la amul juróomi kër amul ñaari kër jàngalekat bi bu fayee ko location fee mu fee mu yem bu ko ca joxee dee na daam sénégalais dañ leen a fatt asphyxier leen même injustice sociale vaccin yi sax bu mu génnee on aurait dû ay vaccin wu VIP la première daam dafa am ñu muy invité daam ay borom dara ji gis nga réew mi gis nga lii nii nga gis xale yi nii. benn enseignant wax leen quoi moi je te xale yi dañu am ay aspirations citoyennes tout petit parce que ils ont envie dañu bokk ci réew mi donc ils ont envie de te dire que tey àdduna bi mënoo freiner parce que dañuy gis lan moo xew ci àdduna bi y a quelqu'un qui rappelle le printemps arabe qu'est-ce qui s'est passé c'est un marchand buy jaay ay ay ay fruits ay mais à force ñu koy ñu koy tànc di ko tànc dem na ba fippu taal na boppam après mu dégénéré gis nga benn mbir bu ndaw bu bu ñu ko xeeb parce que man trois semaine yëpp Omar Faye man damay artu manaa leen ah. ci li nga doon wax ci vaccin yi. dama doon xool communiqué commerce. Hmm. mooy euh, le collectif des médecins pharmaciens dentistes. Hmm. Euh, en spécialisation. Hmm. ñoom dañu nekk en grève. ça fait quarante huit parce que nee nañu vaccin yi. ñoom mënuñu si jot. Ah au moment où ñu ngi jël ay. vaccin VIP la. ko di leen jox ay vaccin ah alors que ñoom ñi nga xamante ni kii traité bañ nga xamante ni dafay nekk en contact. vaccin VIP la woon wala c'était une forme de communication. Ouais, forme ouais, de communication la forme de communication mais nee naa bàyyi ci euh, benn forme la bu ngeen ko jëlul dama koy maye. discrétion bu ndaw la rek mais je je pense que euh, ñooñu noonu bu ñu vacciné woo du tax sénégalais yi vacciné woo parce que gis nga nit crédibilité la. Ah. dàmbooj mu vacciné wu ay junni junni ni topp ci vacciné wu mais ñooñu fa vacciné wu. am na ñoo xamante ne bu ñu vacciné woo sax nit ñi dañ leen di roba dem seen yoon. parce que li jënd mais mais mais ma laa mm-hmm. attention ministre de la santé. bu nekkee dafa am ñoo xamante ni ci santé nañuy yëngu ci bëñ ak yooyu nga xamante ni day jege contact la direct ak ak nit ki ñooñu bu ñu leen vacciné wul ñan nañu war a vacciné mm-hmm. mais mais dañu am contexte semaine même rek ma Omar même ma daaneel rek

de l'instabilité mais ce qui s'est passé parce que su fekkee peuple bi amatul représentant mhm. réew su amatul ay garde-fou amatul opposition amatul institution anarchie lay doon may ma may ma jël euh, monsieur Diouf de Auchan alors monsieur Diouf ñu ngi lay euh, euh, nuyuwaat bi yoon déggante bi dina leer di la waaw jërëjëf maa ngi leen di nuyu di leen nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen san donc di am euh, waaw jërëjëf jërëjëf di am mbégte ak contentement participer ci émission bi donc euh, dama bëggoon euh, surtout rebondir par rapport ak yenn propos yoo xamante ni kii da ko teniroon Pape Matar ndax benn instance ci discours am mi ngi wax waxu emploi emploi précaire yoo nga xam ni dafa am fii nii Auchan Sénégal donc emploi précaire ñu koy défi définir petit boulot revenu très wala ay contrat yoo xamante ni c'est très court ci benn marché boo xamante ni euh, c'est fortement affecté par le chômage mhm. ma koy xamal ni Auchan Sénégal moo ngi toll ci mille sept cent trante collaborateurs sénégalais mhm. exemple évolution yi bëri na fa ba pare emploi yi ngay gis ay CDI la yoo xamante ni c'est légalement constitué dem inspection du travail lépp leer ñun ci suñuy collaborateurs on mise sur la formation te li koy firndeel moom mooy benn ci formation yoo xamante ni alors justement euh, oui par rapport à rapport à ça on va on va on va euh, joxe nga sa sa sa appréhension par rapport à ça ah, léegi dañoo bëgg tey jii nga wax ñu ci euh, ci ci hmm. dégâts yi ak ban message ngay lancer population bi ak ak jeunes yi ok débat yi dégâts yi bëri na trop trop trop trop vraiment ben on a perdu déjà une vingtaine de magasins donc vingtaine de magasins donc euh, un peu partout yi nga xam ni am na yu nekk Dakar am na bu nekk Mbour yooyu yëpp gars yi jël nañ ko donc surtout ci magasin bi mhm. produit yëpp ñu jël ko ferraille yi ñu jël ko ba jël moteur yi nga xam ni dafa nekk ci frigo yi ak climatiseurs yi je pense que ni piller voler ne doit pas être de verbes yu ñu xam ni mhm. sénégalais lañ koy teg absolument spectacle bu ni may bu ni mel waruñu ko woon may au monde entier waruñu leen woon offrir image yu ni mel rafetul benn yoon et c'est vraiment triste parce que man li may wax moom mooy Auchan patrimoine u Sénégal la parce que ñu fay liggéey ay doomi réew mi lañ soo duggee ñu biir magasin yi doo fa fekk benn tubaab mu toog di la jaay di la jaay produit wala nekk ci rayon di liggéey tey naataango sénégalais nga fay fekk ñuy nekk di liggéey di suturawu di suturaal seen njaboot ñu nekk ay maire ak ay père de famille yoo xamante ni liggéey bii moo leen di permettre ñu suturaal seen bopp suturaal seen jaboot hmm. ba pare am avantage sociaux yi nga xam ni moo ngi ci topp yépp ba pare fournisseurs sénégalais yi ñu sommes à plus de six cents fournisseurs sénégalais ñu wutal leen ay débouché ci seeni produits ba agriculteur bi nga xam ni moo ngi ci Saint-Louis mi ngi ci zone des Niayes ak feneen ak feneen ci réew mi su bayee produit ba mu jeex ñëw jox ñu ko ñu redistribuer ko suñu ay magasin loolu yëpp ay débouché la yoo xamante ni instant bi nii yàqu na léegi ñooñu bis bu ñu bayatee seen i produit fan lañ koy jaayee ñeneen ñi nga xam ne jëlee nañu yenn produit di ko indi tamit fan la ñuy tegaat pour pour mën ko jaay rapidement parce que ñun suñu réseau bi moom moo ñu doon permettre le maximum de sénégalais ñu leen di recevoir suñu ay magasin ñu doon suñu ay ba pare ñu koy am au meilleur prix kañ la ñu gëj a toog ay korité ak ay tabaski mu am ay flambée des prix ay spéculation yooyu daf fi jeexoon parce que ñëpp sénégalais yi dañ doon gis seen bopp ci magasin yi di ñëw di jënd ci produit yi parce que xam nañ ni dañ koy am au meilleur prix dans le respect des normes d'hygiène yooyu allo dafa mel ni euh, euh, ligne bi dem na donc. Euh, juste pour revenir non non non comme comme dafa ma interpellé moom quand même man du ma wax ci ci ci ci. 27 avril 2019 l'Union démocratique des travailleurs du Sénégal force ouvrière UDTS-FO est dans tous ses états et pour cause le refus de la direction d'Auchan de recevoir les cahiers de doléances de ses employés en perspective de la internationale du travail du 1er mai à la veille de la célébration de la fête internationale du travail nous dénonçons avec la dernière énergie mmh. les violations et de la loi euh, par la direction de Auchan. D'accord. Pape. très bien loolu yaakaar naa ni leer na nañu c'est des faits que les gens peuvent consulter donc man buñ ko woowee ci télé bi je pense que ni li nga xamante ne mooy dégâts yi ñu jéem a xool na nañuy compatiré mais pas que ñuy naan ay dañuy remettre en question li nga xamante ne c'est important que message bi nekk nekk benn que ñuy ñuy ñuy apaiser pour que yooyu quand même parce que ñun ñëpp a ko ñaawlu ni mais c'est ça c'est ça à ce propos permets-moi en 30 secondes en naan yi j'ai été dama toog ma gis ay booy yu dem jël ay feeraay nga gis ay magum jëmm yëkkati climatiseur voilà parce que parce que aussi euh, manifester mën na am te ci biir piège bi aussi de manière systématique nga gis ñoo xamante ni ay agression da ci rax ak ñeneen ñoo xam ne dañ ci rax donc aussi am nañ ci responsabilité parce que man je n'ai rien contre Auchan ou pas parce que j'ai toujours di ici pour man je ne suis pas pour l'impérialisme économique mais quand dëkk buy dox ci mondialisation am na ay sénégalais yu am ay intérêt dans d'autres pays te lii nii ay investissement la yoo xam ni am na ay ay ay ay rentrée financière su fekkee ni lii am na beneen investisseur ñoo maintenant lu tax nag les gens systématiquement dañuy dem Auchan wala Total parce que tout simplement dañu jàpp ni c'est lié un peu euh, à la France mais c'est important ñu xam ni que ay sénégalais ñoom ñoo fi nekk te lépp lu ñu fi yàq suñu bopp lañ ko yàqal loolu daal la am di di di leen mastawu ñoom mm-hmm. et que état na jël responsabilité ba yu mel nii mu bañ a am lii yëpp nag lu ko indi benn responsable encore une fois ki nga xam ni moo jël doomu jaamuru ñu kidnappé ko ko képp ko fële parce que juste pour des raisons politiques lépp li fi am da ngeen di mhm. xool ci tàmbale bi fan la jógee. d' accord alors euh, suñu déggee tout à l'heure euh, avocat wu Ousmane Sonko yi nee nañ ne ko Ousmane Sonko dina dem jàkkaarloowaat ak juge euh, du premier cabinet lundi incha allah mais ñoom dañuy dénoncer toujours violation des droits de Ousmane Sonko bi ñuy wax yàgg nañ ko laam-laamee mais également ma bëgg nga ñëw si posture chef religieux yi parce que les guides religieux parce que également ñoom itam amaana xaw nañ soxla seen seen seen seen seen kàddu un peu. waaw euh, nee na bul fàtte nag ne sawaay euh, am na question am na am na fu ma laal. Paa Matar te xam nga man ba ma laalee du ma fàtte. question euh, mais sama question tontu non mbuus bi la moo si newoon loolu beneen détail la loolu mbuus bi moom dama koy évacuer rapidement mbuus bi dara nekk ci woon Sénégalais yëpp a koy laaj. Mhm. Eh, est-ce que wane nga ko mbuus bi. vraiment bi may génn. mburaake waaw peut-être mburaake buñ ma yónnee woon la quoi xëy na bu ma waa géewul yónnee. mais bon léegi euh, vraiment question yi mu ma posé sànq dinaa ñëw ci kanam mais lii soxna neen Aïcha wax moom moom ma gën a soxal pourquoi. Mm. parce que sénégalais yëpp ñi ngi wax depuis le début de la crise Ousmane Sonko Macky Sall que nañu wax chef religieux yi ñu wax. mais dama bëgg leeral ni am na am na lu ñu fi waxoon ni chef religieux yi wax nañ en tout cas ku ci mel ni la xalifa général des Mourides ñu ne wax na ak président Macky Sall. loolu tey am na ku ko dëggal koo xam ne man dama ko wóolu muy euh, sëñ Abdou Samad euh, sëñ Chamé bi moom wax na lu leer tey ni effectivement dëggal na ni xalif général des Mourides sëñ Mountakha wax na ak président Macky Sall loolu dëggal na ko te kenn xamu ko ci ay caaxaan moom sëñ Abdou Samad nit ku am fulla la nit la koo xam ni euh, kenn xamu ko ci ay caaxaan naam sax lii yàggu koo def maanaam maa ngi doo gis sax mu dugg ci yu mel ci politique di wax position mhm. Mhm. mais dafa xam ne réew mi moo toll ci jafe-jafe te comme moom leer na ma ni comme ni ko Sénégal yëpp bëgge bëgg na jàmm ci réew moo tax mu dugg leeral pour sénégalais yi xam ni kilifa yooyu ñuy wax ni nan dugg ci wax ci dugg nañ ci loolu la wax mu ne moom euh, ku tedd ki sëñ taxaa dugg na ci wax ji wax na ak président de la république Macky Sall ba noppi nee na bi mu koy wax ak moom dani ko mbir mi bu yegsee ci sa loxo na ko fexe ba wis ci ndox mu set que jàmm na am def dox ci jàmm moo gën pour réew mi te ñoom ku leen xam ak wax ci baatin man jàpp naa ne képp ku bëgg jàmm ci loolu ngay pousse président Macky Sall président Macky Sall nag bu mu dëggal li ko nit ñi di jiiñ parce que bi muy jot doo ko jot nguur gi moo ne les marabouts sont des citoyens ordinaires moo ko wax kenn waxalu ko kon nag man jàpp naa ne boo leen jàppee citoyen ordinaire mooy xamoo Sénégal ñun su suñuy marabu duñu ay citoyen ordinaire ñun dañoo leen a gëm ni ñoom ñoo nuy gindi di ñu wane ci yoon wi ñu war a yegge ci yàlla subhaanahu wa ba noppi dañoo am lu seeni maam liggéey fii loo xam ñun loolu lañ leen nawe loolu c'est important ñun loolu leen gëm kon nag kilifa yooyu bu ñu waxee li ma jàpp mooy da nga leen a war a déglu te kilifa yi li ñu wax mooy nañ teg mbir mi ci suuf kon nag kilifa yi wax nañ na ko Sénégal yi yëg loolu sëñ Euh, sëñ Habib si sëñ Habib si wax. maam maam Abdou ibnu maam Abdou Daba ni nañu fexe ba ñu dalal. wax ni effectivement kon nañ ko doon waxee 2012 dañ ko waxaate fii kon nag président Macky sàll moom moo ci des kon sénégalais yi xam leen ni kilifa diine yi wax nañ maintenant nag moom bu ñu ko waxee mu ne man sama yoon nekku ci justice ñoom ñooy def seen liggéey loolu nan bàyyi wax boobu mi ngi mel ne sénégalais yi naan na justice def liggéeyam. ban justice def liggéeyam. a loolu romb nañ ko. buñ demee ba réew mi nar a tàkk ak lu mu mënoon a doon day jar ñu teg lépp. ci suuf pour jàmm mais mais Karim Wade ak rey leen. parce que Karim Wade ak Khalifa Sall extra buñ daan wax toujours sénégalais yenn yi layam layam yi. dañoo wax ne non nañ bàyyi justice def liggéeyam mais justice def liggéeyam gis ngeen li justice def. Ah aujourd'hui liy dëgg mooy nañ waxante dëgg mooy lii buñ bëggee jàmm am ci dëkk bi te ci laay profité wax ci problème Auchan bii encore une fois les sénégalais dañu adressé un message fort malheureusement ça tombe sur Auchan parce que man d'accord ma ci violence mhm. d'accord ma ci taal loolu kenn du digal kenn mhm. kooku ñun ñëpp ñu ngi ñaan mu dal mhm. mais liy liy tax loolu dal du ay waxi kese naan non bëgg leen jàmm xale yi nañ bàyyi di def un discours moralisateur man gëwuma loolu xam nga lu ma gëm mooy poser ay actes forts acte fort yi mooy ñu xam ne comme justice bi c'est rendu au nom du peuple et que peuple bi moom acté na. leneen beneen décision bu ñu fi jël peuple bi du ko accepté man dama wax benn waaye sax ma ne ko est-ce nga ci coow lii benn sénégalais boo xam ne ànd na ci liñ bëgg a def. presque mënatoo gis kenn ku ci ànd. waa kon bu ñu rendre justice bi pour kan la. xanaa du xanaa du pour ñu dañ ne la justice est rendue pour le peuple et au nom du peuple. Mm. waa léegi peuple bi mi ngi nii ñëpp gis nañu ne acté nañ comme ni ma koy waxee koo gis mi ngi taxaw ni lii du fi amee. mais ça veut dire quoi ça veut dire que ça conforte les thèses. Euh,